maa ngi leen di nuyu man la Mamadou Sadio Bari euh, di servir si service départemental de sports nekk agent du ministère des sports euh, en même temps ma nekk entraîneur si wàllu athlétisme ba pare bokk membre comité directeur mais en même temps ñu nekkaat ay techniciens di encadrer ay booy di encadrer xale yi. Euh, yàlla def euh, district Koungheul bi ñu yor ko lu yàgg muy département bi surtout si Bambouk Athletic Club di di compétir ak ñoom lu yàgg yàlla di ñu may ay ndam nag mais tamit ñu toll foo xam ne ñu bëgg ko di ko gën yaatal lu war lu gën a tax saa ñu organiser journée bi fu mu nekk ñun détection bu ñu bëgg mooy àlla la base bu ñu yemalee bi kese Koungheul kese kese wala benn quartier kese wala benn dix personnes kese dañ ko gën yaatal bëgg nañ suñu Comme commune bu nek bépp commune bu nek ci département bi ñu am fa ben club d'athlétisme. parce que gis nañ la mère de toutes les disciplines athlétisme tamit base la base bu reuy la ci sport parce que mën nga nek athlète nek lenen mais rek pour nga nekk euh, benn sportif nekk athlète du yomb mais athlétisme euh, te sport individuel la neex na réussir yàlla def nañu ñun am nañ fi benn champion boo xam ne tey c'est une championne du monde euh, mu ngi mu ngi France nekkoon na CIAD nekk douane yàlla def mu ngi France léegi. te compétition yu bëri day day participer ay si ay compétition yu bëri donc loolu sant yàlla donc suñu mbebe daal mooy que ne ñu am ay euh, élite ay euh, ay ay athlètes euh, internationaux mais aussi fexe aussi ba département bi fép fu nga xam ne képp ku nga xam ne talent la rek ñu mën ko génne parce que xam na ne département bi bëri na talent. am na talant yoo xam ne ba léegi talant bi mu ngi si biir mais génn bi mooy jafe nan lañ leen di génnee pour indi leen ñu compétir loolu moo waral fii tey ma choisir la journée du 19 mai 2024 def ko benn journée d' athlétisme dafa bokk tamit si journée yi nga xam ne moom la ñu war a euh, euh, yell euh, moom moo ñu moom la ñu diggee ak fédération parce que en tant que district wala ligue da ngaa war a organiser. dans la région de Kaffrine nous avons ligue bi organisé une belle compétition au niveau régional c'est pourquoi man ma engagement en collaboration avec la fédération en tant que membre du comité directeur Je leen man damay organiser journée journée de euh, meeting ici à Kungel, mais dans nekk journée la fédération da koy homologué résultat ici si nous ñu dañ fait mën xayma pour ñu championnat national. problème nag dañ ko am daaw da parce que ren lañ gën a am problème ñun dañ doon dem Kaolack di compétir si tartan bi si piste boo xam ne piste tartan moo fa nekk foofu dañ doon daw loo xam ne temps yi dana gën a baax mais fu nekk dañoo am problème parce que pour ñu compétir léegi il faut nga dem Tamba dafa sori bokkuñ sa région. mais aussi il faut nga génn Kaolack Kaolack stade bi dañ koy defar baaxatul waa Kaolack saa ñoom Fatick la ñu te dañoo def benn euh, zone interligue entre Kaffrine Kaolack ak Fatick mais Koungheul pour ñu mën si compétir day jafe ma ne leen kon man feneen loolu la man bàyyi ma def compétition a Koungheul parce que tey mënoo organiser compétition matinale bi ak à Fatick ne la nga ne waa Koungheul nañ compétir fii loo fi fajaru fajaru da ngay tardé te athlètes yi tamit duñ nekk dans de très bonnes conditions loolu moo waral ñu organiser journée bi tey xam ne tey am nañ fi ñetti club mooy Bambou Athletic Club bu nga xam ne maa ko fii si Koungheul am na tamit euh, Avenir Athletic Club nekk Makoyob Moussa Diallo prof EPS bu nekk Makoyob di ko encadré am na tamit beneen club bu jógee Lour muy ko Athletic Club yooyu man ñun ñoo leen créé depuis daaw te ren dugg nañ. boole nañ leen si club bi nga xam ne fédération reconnaître nañ leen loolu lañ di demee nag bëgg tamit si eh, diir bu gàtt wala si ay at at yi néew ñu fexe ba fas yekkeen am club ida mourid am club misra am club ribo escal am club donc dañoo bëgg commune bépp commune mën a am eh, club club d' athlétisme loolu mooy suñu bébé daawla donc maire dañ koy remercier eh, muy monsieur aline badre lii parce que journée bi bu ma ko jëlee daanaka pare ne ma ko kenn kungel dama ne leader yëpp laa jël en commençant par député euh, par monsieur le maire de la commune de Koungheul Euh, la présidente du conseil départemental ak tous les maires des autres communes dama leen jël def leen ay président d'honneur kon dama leen jël moomale leen bis bi ne bis bi seen bis la parce que ñi di compétir doomu département bi lañ mais monsieur le maire dañ ko si saluer bu baax a le fait que mu ñëw déplacé wu ñëw dañ leen di saluer bu baax a baax te te Koungheul tamit lii mooy problème bi dañuy organiser des fois invité ay nit saa du ñëw mais tey monsieur le maire sigil nañu am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñëw nañ fi di Doudou Seck dugal si seen doole ñoom tamit ak euh, Cheikhou

day bëri nit de mais ñenn autorités yi pour ñu ñëw problème la loolu nag vraiment dañ ciy saluer monsieur le si geste bu nga xam ne def na ko ñu ngi doog a organiser meeting bu nga xam ne euh, maire wala benn autorité ñëw na taxaw fi loolu dañ ko si félicité bu baax a baax euh, moom aussi problème yi wax naa ko depuis si seen orientation budgétaire wax naa ko euh, conseil départemental wax ko mairie parce que tey su wax man sport yëpp lay wax parce que agent ministère des sports la bien vrai que ne athlétisme moom mooy suma ba moom mooy suma euh, kii discipline si moom lay yëngu mais tey sport Koungheul dañoo bëgg ñu dem fu nga xam ne du football kese la ñuy wax maire itam di lancer maire yi nga xam ne ñoo nekk si département bi di maire yëpp neuf communes yëpp ne euh, sport yi bu ñu jàpp ne football kese la lu ñuy allier sport nañ fexe boole si yeneen discipline yi athlétisme mu nga xam ne mooy la mère des disciplines moom gis si boppam. lutte gis ci boppam handball bëgg nañ a basket ak yeneen discipline yi nga xam ne war nañ mën a dugg nañ fexe ba eh, eh, nañ fexe ba multiplier discipline yi si commune bu nekk ku ngel nag am nañ problème infrastructure maire fu ñu koy gën a fu may gën a eh, appelé interru si moom moo ñu jàppale ñu si infrastructure ku ngel benn terrain multifonctionnel bi lañ am mooy terrain biñ naan terrain parce que am benn piste d'athlétisme suñu amoon stade bi nga xam ne stade bi ñu defar ko mu am benn piste d'athlétisme boo xam ne dana am piste 400 muy maire muy député Fanta Sall mooy euh, euh, ñëpp euh, Socé Diop président du conseil départemental maire yi fi nekk yëpp lu ñu leen di parce que sport lu koy doxal nekkul ay subvention kese chaque année nga am ay subvention jox leen du loolu mais nañu jàppale si ay infrastructure infrastructure na suñu booloo outil ji war nañ ko mën a am Koungheul war nañ fi mën a am benn stade boo xam ne stade multifonctionnel la parce que sport si euh, région Kaffrine defe naa Koungheul moo si jël première place daaw rek da koy wone bu ñu demee championnat national bien vrai que ne lu ñu yóbbu bëriwul Koungheul Bambou Club moom moo génn en tête les championnats nationaux ñaar yëpp euh, Kaffrine région de Kaffrine a enregistré quatre médailles et Koungheul ana les trois médailles bam muy Club te soo xoolee Birkelane cinq clubs moo fa nekk benn club mu ngi fa Koungheul benn club mais résultat yi ñuy am si club yooyu yooyu népp Koungheul moo am trois médailles avec benn club am na Birkelane am na ay club yu bëri donc yaakaar naa ne Koungheul ñun suñu jàppalee suñu jàppalee sport bi dana jëm kanam athlétisme dana jëm kanam parce que fii bëri na boo yoo xam ne am nañ talent mais aussi dañu gën a jàppale surtout si école yi aussi ñu ñuy gën a jàppale parce que luy tax mu gën a suñu waayee jeune dañuy wax élève élève aussi foofu la ñuy amee moyen de détection surtout sport scolaire bi aussi day day tax club di gën a dund day dundal club yi parce que xale yi ñuy am foofu ñu leen di gën a ràññee di def performance bu baax ñoom lay club yi di gën di soxla pour gën leen encadrer daaw da en fait c'est ça loolu mooy euh, bëgg nañ athlétisme bi d'accord nous sommes premiers dans la région même championnat régionaux yi daaw ñun ñoo nekkoon premier amoon avec 19 médailles dont 11 médailles d'or daaw loolu lañ jël ba pare jël la coupe du meilleur senior Euh, au niveau de la ligue de Kaffrine terrain aussi bëgg na te daw Bambouk Athletic Club rek participé avec les clubs de Birkilaan les cinq euh, clubs de Birkilaan ak le club de Kaffrine moy euh, Kaffrine Athletic Club ren c'est fait ne si fekkente né Jokko Athletic Club Lour ak Avenir Athletic Club ak bambou Athletic Club and nañ ñu dem régionaux yaakaar na ne kafrine ak Birkilaan ñoom duñ laal sa médaille. pour am ay adéquate pour mëna a davantage cette jeunesse la bi nga xamanteni ni mu talent bu ne parce que suñu démé ba gis taille au niveau international suñu de suñu sœur nek feulé ci France di évoluer ci l'athlétisme, athlétisme di ci am ay distinction yu am solo donc day wané né tay talent bi mu ngi il suffit tout simplement qu'il y ait un bon accompagnement pour que nous mëna davantage de talents yo xamné ne évoluer sur la scène internationale donc di wax ñun en tant que élu local tay suñu mission moy fexé nek au service de cette jeunesse là comme nous l'avons ko waxé gungé len jappalé len pour que ñu mëna fexé ba nga xamné aujourd'hui Koungheul dina mëna sur le plan international sur toutes les disciplines sportives défé na né Li fierté la tay gis né fi ci suñu dëkk ndaw ñi ñu di évoluer ci li nga perspectives kanam di remercier encadreur vraiment ñi mais di profito di wax un petit coucou au footballeur le président de la du district Pape ak notre frère Amadi ñoom it vraiment ci liguey bu rafet bi nga xam ñu koy def ci football bi mais aussi surtout ci accompagnement wu suñu au communal bi di AS donc Sadio Barry vraiment merci pour tous les efforts que vous avez consentis pour permettre l'organisation quand même de ce meeting sportif surtout en matière d'athlétisme pour permettre à cette jeunesse là de s'épanouir mais aussi surtout à montrer ce qu'elles peuvent apporté au niveau du landerneau sportif de ce pays merci jërëjëf Mbekte la ci ñun ñu téwé de té di feddali rek suñu engagement di réitérer suñu disponibilité par rapport à cette jeunesse là di leen wax aujourd'hui plus que jamais on sera davantage euh, Intéressé au premier chef par tout ce qu'ils font, surtout concernant cette prouesse sportive-là. de remercier Nyep